soppe almisbaax yi nekk ci biir réew mi soppee soppe almisbaax yi nekk bitim réew fépp fu ngeen mën a nekk ñoo ngi leen di nuyu di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu sàmm ñaan ko mu yokk jàmm ci réew mi def ko ci réew yi ñu wër ñi tawat di ñu déglu yal na yàlla saafara leen ñi nekk ci ay jafe-jafe ak yum ci man di doon yal na ko yàlla oyofal yal na doon ab nattu boo xamante ne day jeex mu jural leen yokkuk ay maqaama maqaama yi yokku ci saayir yokku ci baatin ñoo ngi nuyu soppe am di jàmm yépp fuñ mën a nekk di bég lool ci ni ñu toppe jotaay bi di leen dokkeel ci bis bu tedd bi ñu nekk tey di bisu àjjuma niñ ko waxee di sangub bis yi ay ayyaam ñaan yiw yi ci borom bi dëxëñ dencal ko xeetu yeneen yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne dañ koy jariñoo yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne dañ koy muurloo ci salaatu ala nabi muy julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye ci bari luñ ciy def ay istixfaar ak bari luñ ciy tudd borom bi subhaanahu wa taala bis bu màgg la ci ay bis gi ndax lim dajale daa bari moo tax àjjuma jañu génn ma waxoon la ne daa bokk ci ngëneel yi ak li ñu jege lool ba buñ làmbee daj ko muy daje biñ ciy daje ci bëccëg bi ca jumaa ja te bis ko jiitu woon mu nekkoon jullit tisbaar goo xam ne mbooloo ma mën naa bañ a toll noonu xutba ya fay amit mën na caa bañ a amee noonu waaye nag ci bis bu tedd bi day ànd ak yooyu ma wax léegi muy xutba baag ya nga xam ne moo ca ajo loolu nag di taxawaay waaye di tirbin boo xam ne lislaam a ko moom kàddug lislaam ña ko yor te féete kaw mooy ilimaan yi maanaam aima yi moo tax jamono jooju ñuy def seen déclaration boobu du waxuñu kenn mu tàccu kenn du sar xolle kenn du commentaire moom dañ ñaan rek na ñëpp déglu ne cell ku wax sax sa julli yàqu sa ajjuma yàqu moo tax kon bëgg nañ ñuy wax lu tollook nit ñi waaye di ko waxit ci waxin woo xamante ne nit ñi danañ ko dégg loolu lu am am solo la maa ngi masaw bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñoo yëngu ci transporteur yépp maanaam ci transport laa bëgg a wax bari na ñoo xam ne dañuy déglu almisbaax ci fajar gi waxtu wii da leen di fekk ci ay oto ñuy xëy benn ñu nekk ci kaar moo xam car rapide yi la wala njaganjaay yi la wala tata yi la wala wala ñoo ngi leen di masaw bu baax a baax a baax a baax ndax réew mi noonu la bindoo léeg-léeg ñu bari ci ñun defal loo xam ne mën ngaa toog ab diir te liggéeyoo say mbir yi dox yombu leen yomb ñu ñu baree bari ci ñun waaye nag yooyu yëpp ci àdduna la ak mbiram jombut bu fekkoon jotaay bi am minbar la te ñuy waxtaane lépp lu laal actualité des na ci taxaw lu yaatu ndax bunt la bu ubbeeku boo xamante ne ñaara ko séq am ku nekk ci diggante bi ñetteel leen ñaar ñi ko séq muy transporteur yi ak ñi nga xam ne ñoo ciy yëngul ñëpp ci wàllu transport dem ak dikk ñooy kenn ki keneen ki ci des mooy jëmmi état mi nga xam ne euh, ñun ñëpp dajale suñ doole jox ko ne ko kat ñun ñëpp mënuñoo ànd di dogalandoo di yëkkateendoo ak a teg moo tax lii lañ dëppoo muy ay loi lii lañ dëppoo muy lu ñuy comp ci suñu tuut suñu liggéey dajale li ñu am ci alal jox la waaye jël luwaay yiñ dëppoo ne la dee ko teg ci suñ kaw bu ko defee nag euh, di la wooyee tur wu nekk ak di la màggal waaye bëgg rek yiñ mënalul suñ bopp ñu dëppoo ne yaa ñu koy defal léeg-léeg yi am diggante njiit ak ñim jiite ba àdduna sosoo ba léegi daan na am waaye nag taxawaay dëgg-dëgg foofu lañ koy soxlaa moo tax ku ñuy jiital ku ne ñu di la tànn ndax àdduna ki jafe-jafe ànd kenn ku ne sa jëmmi bopp ji rek mën naa am am nga ci loola neexut nga di ko wéyaale yu naqari yooyu nag bu wàccee ci pénc mi day mujj bari waaye yëkkati ko ci anamuk saafara ba ñaar ñooñu di xëccoo ki ci diggante bi te mooy eh, askan wi population bi te ñaar ñee bokkaat ci biir population bi seeni lor man cee wàññeeku loolu yitte ju eh, rëy rëy la laaj joo xamante ne warees na ko cee taxawee dëgg-dëgg taxaw ndax yooyu daa bokk ci li tax mbir yi jag boo demee ci réew ya nga xam ne ñoom dog nañ yoon wa ci jagal seenum réew Euh, xam naa sax danañu grève wala ñu am lu leen naqari waaye nekkul ne grève bi day doon grève bu faste say loxo xëy na bindu kayit lay doon ñenn ñi takk ay morso ñenn ñi am heure boo xam ne dañuy taxaw jonn marqué ko rek ci benn sest boo xam ne danañ xam ne nangam naqari na leen waaye léeg-léeg buñ ko xëyee def balaa jant bee beesoo mu faju ndax bu fekkee la ko indi woon ku ñu war a sanctionné dañ koy teg ay daan bañ yëg ne daanal nañ leen kii ndax adduna bi moom réew yi gën a dox bokk na ca la tax seen économie gën a dox mooy mën a tege ay daan mën a tege ay sanctionné ay sanctionnement te ña ñi sanctionné ba noppi itam di nangu yëf ya dal ci seen kaw ndax ci doole lay doon loola di delluwaat ci réew ma mu juga ñëppay jub te jub ga du doon jubug ragal yàlla du doon jubug jikko waaye jubug xam ne boo dëngee li ñu teg ku dëng dal ci sa kaw doo ko waral waaye nag boobaa Euh, njiit loo xam ne kon day dékk nopp askan wa mu jiite ngir buñ sëqatee mu xam seeni metit taxaw ca askan wiite mu wóolu ko ba du jar ñuy puus ba mu sës ndax dañuy yëg ne dégg nañ ko te dañ taxaw bu ñaar yooyu amul nag dañuy xëccoo ba buum gii ba a dagg wala sax mu dagg lu bari yàqu ñu door a toog waxtaan te kat ci toog waxtaan lañuy mujj ci toog waxtaan la ñuy mujj jafe-jafe boo fi dégg ak lu coow li bari bari bari bari toog waxtaane ko képp la ñu mujje dañuy dem ba toll foo xam ne buñ ko mënta lijjanti ñoom kilifa diine dugg ci woote ci ñaan ci njëkk wax ak ñenn ña ñenn ñi bàyyi jàmm dellu siwaat waa léegi loolu lu tax duñ ko njëkke lu tax duñ ko njëkke tey waxante nag li nga xam ne mooy dëgg ak li nga xam ne moo am njariñ bu boobaa moo gën dëkkee di àtte te artu nekkoon fi ndax kuy grève sax dañoo wax ne day def préavis maanaam da koy yëgle wax ne danaa grève bi sàngam nangam ak nangam moo ma naqari ba may grève kon am na lu koy jiitu loo xam ne bu ca taxawaay amoon yëf yi du àgg foofu ala kulli xaal bésu àjjuma moom buy jeexal semaine bi am jotaayub xutba yooyu yëpp daara am na ci xalaat lislaam am na ci xalaat te ay responsabilité la yoo xamante ne yu tasaaroo la waaye yi ci jiitu nu nit ki dayoom gën a màgge responsabilité bam ba ca yenu gën a toll noonu tàmbulee ko ca ministre bañ dénk dem nga ak dikk ba taxawaayam àgg ci chef de l'état taxawaayam waaye àgg ci ñi nga xamante ne ñooy transporteurs yi ak ñi jiite syndicat yi seeni taxawaay yal na jàmm dellu siwaat ndax lu baree bari ci lu ñuy jàmbat ci point yi boo ko xoolee gis ko ci pénc mi nee naa corruption bi moom xam naa ñoom dañ koo joxoon ci seenu wet waaye xaw tuuti kon nga ne lu lu daj topp rek réew mi la ci bànqaas yu bari ak taxawaay yu bari loolu nag dañuy yóbbu ci jikko yu yàqu yi nga xam ne moom lañ am maanaam day dem ba mujj yàgg nit ki du mën a def te yàlla tax du mën a def tam réewam tax du mën a respecter engagement nga xam ne loo defal nit te waroon a jaar ci defal ko ko ci coobarewu danga koy defal ci lu dul ak coobarewu maanaam faaw rek mu am lum la defal faw mu am lum la defal demoon naa ci réew moo xam ne luñ la defal rek ne la pour pourboire mën leen xanaa li ngeen di naan de bu dee boir mooy naan moom war ñu ne màndi maanaam bu ñu la tegtaloon aw yoon sax ne la ne la ne pour boir <laughs> ma ne xalaas man bu ma déggee pour boir sax pour man leneen la ñu ne ma mooy ma xamoon naa ne boire moom xëy na du sori naan waaye nag eh, léeg-léeg it nit nit itam ci wàllu tegaate tegaate yooyu mu metti ci dem béeg dikk bi lool ba nga xam ne waxuma sax ñiy def eh, transport noonu waaye ñi nga xam ne dañoo yor seen watay bopp rek la la ñu jànkonte jeeg ay jafe-jafe yu bari ala kulli xaal taxawaay la yoo xamante ni mat naa waxtaane dellu siwaat ci yar bi ak dellu siwaat ci moral moo tax ci ay bis gi bañ gisee koo xamante ne daa def loo xamante ne dëppoowut ak jikkoy ngor ndax daa amun yoo xam ne ñun gore la woon ci ñun fonk kàddu dañ koo defoon wax naa ne bari na ay maam yoo xamante ne dañoo faatu la leen rey rek mooy fonk seen kàddu bañ rek seen kàddu dañ ak bañ yàq seenu woy seen ginnaaw am na ñoo xam ne mënoon nañoo doon ay milliardaire mënoon nañoo am lu ne ci àdduna waaye bëggoon a fonk seen dignité ak bañ seen kàddu dañ tax nañu dund dund gu yamamaay ba xëy faatu waaye ala kulli xaal ña doon dund cee jamono joojo yori milliard ak ñi doon dund te yoruñu dara ñëpp a faatu kon adduna moom lii sàmm loolu dafee mat a des su ma ci gënee xóotal dugg ci eh, coowul politique beeg ni mu tëddee te loolu mën naa doon ay détails waaye ala kulli xaal lii rey as gor lii rey ngor ci moom euh, warees na ko moytu ci penc mi ba ñëpp àndandoo moytandiku ko ndax dañuy toll foo xam ne wut alal day yóbbu nit bu boobaa ci nu ma amee baax na lu ma am baax na nu ma amee baax na lu ma amee baax na te fi mu ne toll nañ foofu waaw nu ma amee baax na lu ma am baax na nga xam ne euh, euh, nit ki moom day lijjanti ba am rek ndax bu amee ñëpp jàppee ko ku baax te yàlla xam na ne am na am am yoo xam ne ku ko am buñ lay taggit boo tëddee waroo nelaw penc mi nag daa mel ne bu ñu wax ne léegi la mel noonu da xam ne sax xaw naa yàgg mel noonu ndax sëñ Moussa Ka ca woyam ba bam naan ku ami junni judduwaat di buur fëri ku ko amul ñu ber la loo gore gore loolu yàgg na lool kon xaalis yàgg naa mel noonu yàgg naa mel noonu waaye nag daa am loo xamante ne nit ki mën na koo jënd mën na koo jaay waaye am na loo xamante ni kenn mënula la koo jëndal waaye boo ko xasee ba amit amut ak njëg amut ak njëg moo tax ku ko am te xam ko doo ko jaay ku ko am wala boo koo dégg mu wax ne da koo jaay amu ko woon ndax ku ko am xam ko ndax dafa neex dafa neex muy gore muy doylu muy maandu muy fegu loolu am am yu dul jeexle yoo xamante ne tàggatu ceeg yar ci farata piir la Euh, loolu buñ doon waxtaanee ne ab ba day jaar ci actualité loolu yennat la ci actualité yi nga xam ne moo fi jaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñu bari ñuy dugg sawara ñaara leen fay dugal mooy seen làmmiñ ak seenum pëy waaw pëy mooy awra maanaam bu dee góor fi muy jotee ak jigéen nañ ma baal ma waxee ko noonu benn yoon mu leer loolu nag li muy tegtale mooy làmmiñ dafa dansé te ñun suñum pénc léeg nit ki boyal aw làmmiñam rek boyal aw làmmiñam sa làmmiñ bi boo muytu rey nga ci ñu bari tuumaal nga ci ñu bari wax nga ci ay toj-toj bataay wax nga ci ay toj-toj bataay ndax léeg-léeg ci politique euh, bu dee yarub lislaam ñëw na te réew mi ñu ko ëppee ñu ko dëkkee doon ay jullit suñu message di jëm ci loolu dañuy fàttali euh, yàlla nu bëgg ñu jàppantee ko ci suñu biir olof yi dañuy wax ne koo xeeb rek mu yab la koo xeeb mu yab la waaw te nag koo xeeb ba doyadil ko bisub keroog moo la gën boo ko yëgee boo ko yëgut ndax ku gën du xeeb kenn hmm. ku gën du xeeb kenn nga neel moom ëllëg yow mal xiyaam lañ koy xam loolu la Seex Sidaaj Maalik waxoon nee na bu pënd ba wuree la xam kenn ku ne koo seen mu jëm àjjana yow te demoo àjjana jàppal ne kookaa la gën waaye loolu àggaguñ ci di kon ci àdduna góor góorgóorlul ci sa yu baax te di ko nëbbu te di ko fàtte góorgóorlul ci sayu bon di ci bàyyi xel te bañ koo fàtte te di ko tuub te nawloo nit ñi te xam ne ñun ñëpp a bokk jenn maam muy aadama ak xawa li fi dox ci diggante bi ay cër la aku góor góorlu li ci dugg ci say loxo ba mu réer sàmmal li ci dugg ci say loxo ba bu mu mhm. réer boo ko defee rek da nga da jariñu boo ko defee da nga jariñe suñu ñaaru ñaareelu xaaju waxtaan ci suñu fajaru àjjuma mooy ñu waxtaane ngëneelul bari looy tudd yàlla tuddu borom bi subhaanahu wa taala tudd yàlla waxoon naa la ne mooy fàttaliku ko tuddu yàlla mooy fàttaliku yàlla mooy fàttaliku yàlla daa bokk ci jëf yu rëy yi daa bokk ci jëf yu baax yi daa bokk ci mbir yi nga xam ne day tegtale ne jaam bi dafa jege boroomam subhaanahu wa taala te it day tax suñ borom bëgg la day tax suñ borom bëgg la te boo koy tudd dalay xiirtal ci nga di ko jaamu ndax tudd yàlla rek ak jaamu la ndax jëfe ndigali borom bi subhaanahu wa taala la di tudd yàlla day indi ak dal day indi ak dal ndeysaan sama benn xarit Moustapha nee na ma wérd ci yi ma gën a neex la bokk nga yëg ne kooku am na genn cafka gum am ci tudd yàlla fi mu ne ki nga xamante ne nii day faral di ne naa ko waxuma sax yiñ wax ne daa nekk ci wérd yépp waaye téye gim la téyeloo saw làmmiñ ba doo dugg ci ci lu saw yoon nekkul rek da koo jar da koo jar na nga essayé loolu léeg nga toog ba mu yàgg rek nga ne danaa fi danaa fi julli ci bi ñaari junni yoon ñaari junni yoon ci ab jotaay dana tax jotaay ba say wax du bari ndax wax ju bari baaxut dana tax itam doo jëw ndax ñun fu wax ji baree rek ñu jëw wala ñu fen wala ñu wax lu suñ yoon nekkut mhm. wax lu suñ yoon nekkut loo xamante ne sa yoon nekku ci boo moytuwul nga nekk ca même bu dul jëwit moom sa yoon da cee nekkut mhm. sa yoon da cee nekkut kon tuddu borom bi subxanahu wa taala da lay indil ak dal da indil ak dal ba noppi da lay indil xol bu féex ba noppi da lay dindil ay njaqare da lay ay njàqare te da lay indil ak bëgg borom bi subxanahu wa taala allahu akbar dem ba nga xamante ne jaam bi day bëgg boromam bëgg boromam allahu akbar nit bu bëggee yàlla day am yu baree bari yoo xam ne da koy jomb te day te dootu feeñati ci moom. te da koy yóbbu nag mm, ki nga xam ne day fàttali borom bi subhaanahu wa taala ak di ko tudd mu yóbbu ko ci darajay bëgg borom bi subhaanahu wa taala moo tax bari looy tudd yàlla bari lool ay ngëneel bokk na ca ngëneelam ya mooy day indi suñ borom subhaanahu wa taala gërëm la da indil njéggalul borom bi subhaanahu wa taala waxoon naa la léegi ne ndigalul yàlla la borom bi wax ci alquranul karim ci suuratul ahzab ya ayyuha amanu udkurullaha dhikran kashira yàlla nee na yéen ñi nga xam ne yéen a gëm na ngeen di tudd yàlla lu baree baree bari su fàttaliku leen tudd leen borom bi subhaanahu wa taala tudd gu bari tudd yàlla gu bari googu da lay indil kon ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala waaye tudd yàlla googu sabab la sabab la ci jaam bi ay mbiram yëkkatiku ay mbiram yëkkatiku mbiru yëkkatiku mooy eh, mu nekk koo xam ne ku am daraja lay doon waaye mu doon koo xam ne ku am wàccuwaay lay doon ci boroomam subhaanahu wa tuddu tudd yàlla day tax nit ki ay aajoom faju day tax nit ki ay aajoom faju ndax koy woo ba muyu la boo ko ñaanee mu may la te tudd yàlla mooy fàttaliku borom bi subhaanahu wa taala bokk na ci yi muy def ci nit mooy day laabal ab xolam day laabal sa xol ci bakkaar da koy xacc waaw xacc da koy dàggi maanaam day mel ne xol bi dafa tilimoon ab tableau boo xam ne dañ cee bind ba mu tilim nga tooyal éponge fomp ko day mu ne turu yàlla bi noonu mooy noonu noonu euh, tablo bi éponge euh, bi di ko fompee taq-taq ya ca nekk tudd borom bi subhaanahu wa taala noonu lay fare bakkaar yi nga xam ne moo nekk ci xolum nit ki noonu la koy indile am nooflaay ci waxtu yi nga xam ne waxtu yi tartar la waaw bu bëggee amuk dal di tudd borom bi subhaanahu wa taala léeg-léeg ay problème ci sa biir liggéeyukaay wala nga am ko ci sa néegu sëy wala nga am ko ci ñi ngay jëflanteel am na solution bu ma la joxoon ay bis gee ñu génn waaye tudd borom bi subhaanahu wa taala it dara ëpp ko ci doole tudd yàlla nag bari na man nga koo defee ci turu yàlla waaye wa ca gën rëy mooy laa illa allah illa allah laa ilaha illa allah boo yemee foofu yaa ngi tudd borom bi subhaanahu wa taala waxee laa ilaha wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir li nga wax kenn waxul lu ko gën kenn waxul lu ko gën xanaa ku wax lu toll ne li nga wax ba noppi dolli ci dara waaye li nga wax moom balance baa ngay yëngutu tudd borom bi subxanahu wa day tax a mucc ci mbugalam day tax borom bi subxanahu wa musal la ci mbugalam tudd yàlla day tax nit ki dugg ci ker ga nga xamante ne. bisub yowmal xiyaam yowma laa zilla illa zilluhu day bokk ci ña nga xam ne borom bi di leen di keral tudd yàlla day tax nit ki am ak texe day tax nit ki am ak mucc fi dunya wal axira tudd yàlla day tax nit ki sori ak càggante waaw day tax nit ki sori ak càggante càggante mooy nit ki xolam mërmëral ba julli jot nga mën a bañ a julli kooku daa bokk ci ñu sàggan ñi booy natt sa càggante bu dee man ngaa toog yor kaamilu alxuraan bi di bëgg a jàng ba mu yàgg nga far ko bàyyi bu dee julli mën naa jot nga jàpp ba bëgg a julli far ko bàyyi benn programme boo doon seetaan rek wala dossier boo doon bind wala livre boo doon liir wala série boo doon seetaan mën naa dox sa diggante julli yaa ngi bokk léegi ci ñu sàggan ñi ci ñu sàggan ñi da ngay mujj yàgg nga dem ba bokk ci kàccoor yi da ngay dem ba mujj yàgg nga bokk ci yéefar yi yàlla nañu ci yàlla musal ay étape la tudd yàlla nag dalay soriloo groupe ñi nga xam ne dañoo sàggan am na am na nit ñu saggan ñoo xam ne booy tànn ay àndandoo sax war a wut àndandoo bu ko sàggan ah, da xool ki nga xamante ne ni nga bëgg mel ni nga bëgg a mel nga xam ne noon ngay rêvé yow loolu mooy sa yitte ngir nga mel noonu nga xool ñani mel nga def leen ay xarit ànd ak ñoom ni nga xam ne bëggoonee mel ku mel ku bul ànd moom waaw bul ànd moom na nga tànn ñi ngay àndal waxta biri xabla suxba wala tusaahib xumuran aw saa raxba waaw sëñ tubaa nee na booy wut àndandoo na nga na nga tànn ñi ngay àndal waaye bul ànd akub dof bul ànd ak koo xamante ne jëmut fenn waaw koo xamante ne jëmut fenn ab àndandoo dañ koy tànn waaw dañ koy tànn am na ku baaxoon daan góorgóorlu ci mbaax nga gis ko rek naan xanaa kii du sawaay léegi ah sansé na léegi di boo demee ay àndandoo ko sansé di fa kam min jaahilin arda xaliman xiina waaqaahu Mm-hmm. rek kon na nga na nga tànn ñi nga xamante ne ñoom ngay àndal na nga tànn ñi nga xam ne ñoom ngay àndal tudd yàlla day soril nit ak càggante waaye day tax jaam bi di fàttaliku boroomam subhaanahu wa taala loolu da ko yitteel ba dootu tala def ay ñaawteef te bu defee ay ñaawteef tudd yàlla day tax borom bi subhaanahu wa taala jéggal ko ay ñaawteefam moo tax alxusulu ala maxfira wal ajri al azim min allahi aza wa jalla daa bokk ci yi nga xam ne tudd yàlla da koy defal nit day yóbbu nit ki ci borom bi jéggal ko waaye day yóbbu nit ci mu am aljanna waaw mu am aljanna ci bari lu muy tudd borom bi subxanahu wa taala da koy yóbbu ci mu dem ba am li nga xamante ne mooy aljanna kon nañ bari lu ñuy tudd borom bi subxanahu wa taala bokk na ci li muy def ci nit da koy musal ci ak naafiq te nag fi mu ne luy taxa a mucc ci naafiq rek euh, jar naa def ndax naafiq du tudd yàlla lu bari waaw am naafiq moom mënta tudd yàlla. naafiq li muy mën a def mooy lu ñuy def ci mbooloo bu ñëwoon daal nañ génnee kurus yi ñun ñëpp tudd yàlla boo muy tudd mu naan am sa kurus moom boo demee am na kurus gu gudd gu rafet waaw moom tubaarkal la waaye bu dee wéet di def dara yow xoolal ba xam mën ngaa wéet def daraam diir rek fi mu ne nit wër te wax nit ne ko yow am naafiq nga waaye léeg-léeg bu ñu waxee jikkoy naafiq yi nga yëg ne am nga ci benn buñ ne naafiq fu mu waxtaane fen te yow foo waxtaane rek xam nga sa bopp di nga baal ma xam nga ba xam da nga cay rax lu ci bokkutam déet jikko jooju xeexal ak moom mu dañ yaa koy xeexal sa bopp buñ waxee ne naafiq kum digal wor la kum dig wor la te yow mënoo respecté kàddu am nga benn jikko di xeexal ak moom ngir mu dañ buñ waxee naafiq day mën a xuloo te yow da ngaa mën a tontonte mën a dagg sante bu dem dellu si fexeel nag tuuti nag mu dañ nag yaay xool alxuraan nee na naafiq wax ji day neex jëf ji jëf ji jëf ji day rëy ci kaw waaye naafiq la muy jëf lépp dara yàlla taxu ci naafiq mbirum biir la doo ko jiiñ nit doo ko jiiñ nit diw naafiq la rek bu ko kenn wax waaw bul jiiñ kenn ak nifaax ndax daa bokk ci yi gën a bon waaw te daa bokk ci yi gën a bon ndax innal munaafiqiina fii darkil asfali naar yàlla nee na naafiq yi ñooy nekk ca ndëttul sawara wa ca ndëtt la lañu nekk waaw bu doon sawara ak mbana la naafiq yaay xooñ li ña ngi ca suufa suufa suufa suufa suuf ndax seen jikko daa soof waaw daa soof programme yëpp naa fee xëyee ko yàq yal nañu ci yàlla musal tudd yàlla nag day tax nit ki mucc ci ak nifaax yal nañu yàlla nangul suñu jaamu yëpp te jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc yal nañu musal ci ayu àdduna musal ñu ci suñu ayu bopp jafe-jafe yi ci réew mi yal na ko yàlla teggi yal na yàlla saafara ñu tawat yal na yàlla may ñi nga xamante ne yitte nañ te ci ay jafe am am yal na yombalal ñi nga xam ne dañoo ne ciy jafe-jafe moom loolu yomb na ko def ko wàññiwu ko dara yal nañu ko boole defal ñoo ngi leen di jéggalu bu baax a baax di leen baalu àq di leen ñaanal di ñaanal soppee almisbaax yëpp di nuyu suñu jigéen docteur Anna Dia jël nu soppee am di jàmm yëpp teg ko ci loxoom di nuyu Cheikh Fadel Ka di nuyu Serigne Baara bu sëñ Modou Faati Xëri soxna Aram Silla suñu maam Kiné Caam soxna maam Aram Mbàkke ak mboolem soppee almisbaax yi ñoo ngi leen di nuyu alxaaji Ousmane Ñang bu nget Serigne Cheikh Gay Tamba di siyaare soppee am di jàmm yëpp